politique bi président nag da nga ciy taq rek foofu laay mujj ak yow te politique bi yegg si ma boo xoolee fi mu nekk nii élection yi dimanche la incha allah war ba ay quelques jour moo dox suñu diggante ak élection yi candidats yi 19 candidats la euh, euh, maanaam élection yi ni mu déroulé par rapport ak rapport bi ci amoon ak conseil constitutionnel bañ looloo fi ñu jaar ba yegg si fii loolu lépp ci election yi loolu noo ko jàngate ban gis nga ci am balaa may ñëw ci nga àndal waaw gis-gis yi ma si am sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam conseil constitutionnel ñëpp xam nañ ne PDS defoon na recours ñu dem assemblée président def décret yokk date bi ñu annulé ko bu ñu waree dem campagne électorale conseil constitutionnel d'accord joxe datam date boobu lañ nekk ni ñëpp xam nañ ne tamit euh, ñu siy gërëm suñu ndijaay dundooy nga xam ne moom Maître Doudou Ndoye bu mag la mu ngi koy gërëm ci ni mu taxawee réew mi wax di constitution bi wax parce ñu bëri dañ doon wax ne bés boobu mag Sall day dem lu ko mu ne leen du dem article 36 dafa war a toog ba def passation ba pare mais bu fekkee date bi ñu doon wax jeex na warul dem parce que moom moo war a def passation wax wax kiy jiitu ki jël réew mi lii la réew mi doon doxee lii la fi nekk jox ko li nga xam ne mooy dossier yi ñu koy gërëm si loolu ba ñu waxaatee ne bu ñu tasee président assemblée nationale fekkee président dafa démissionné dañuy annuler candidat yi mu ne leen déedéet conseil constitutionnel constitution bi waxul loolu candidat yi kenn mënu leen annuler dañuy dem loolu yëpp ñu ngi ko siy gërëm di ko sant moom nga xam ne dafa am benn association bu mag bu ñuy wax club de Dakar moo ko jiite ay kàndem ñu mag ay kilifa yu mag a nga fa ñu leen di gërëm di leen sant ñoom seen taxawaay si réew mi moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla may kutu fan ak wér parce que réew boo si nekkee mag am xam-xam da ngay gàntanti réew mi bu réew yi bu nit ñi bëggee juum nga teg leen si yoon moom bu dëgg yàlla ñu ngi ko siy gërëm di ko sant waaw léegi loolu am na solo léegi élection yi bientôt la incha allah quelques jours prési fu mu far kan lay campagne ak kuy candidat waaw man xam nga sama candidat yooyu sax nga say laaj ñëw na si làmb ji ñëw na keroog bu ñu toogee si làmb ji euh, méridien wax na la ne du jaañ sama xarit la waxuloo ko. kan ah, wax na ko ci wax na ne man sama xarit la waaw moom waxuma ko. man waxuma ne Amadou sama xarit la moom mooy leen du jaañ jekkoo sama xarit la. ku ma yàgg jàppale ñu yàgg ànd la ko moo ko wax wala waxu ko ah kon man utu ma ne Amadou Ba sama xarit la moom moo wax ne sama xarit la effectivement man nangu ko nag sama xarit la kon man bu may àndal damay ànd sama xarit. sama xarit laay àndal. ndax sa xarit am nga yaakaar ne euh, le 24 mën na gagné réew mi premier tour. sama xarit am naa yaakaar ne incha allah dina gagné premier tour. parce que compétence bi mu am. ma xamal réew mi ne leen fan sa club réew doo fan nit naan diw fan moom lay fal réew compétence la yow xam-xam la réew pour jiite ko xam-xam la compétence la du ay wax bu bëri compétence da ngay jàng xam réew mi nan ngay yore réew ñu respecté la Amadou Ba tey nekk na ministre de finance muy mi muy banque mondiale muy fépp ko respecté dem na fi club de Dakar euh, club de Paris réglé fa xaalis bu lu jeex ay milliards indi ko si réew mi Amadou Ba homme d'état la il a des am na yërmande du wax lu bon mosoo dégg fii nit wax ko lu bon ba mu tontu la. déet tontu fan yi mu ngi xuloo moom. xuloowul. ah xuloo xuloowul. xulóowu ndax ndax ndax wax na gaa yi tontu ko mu mu mu mu maanaam mu dolliwaat. déedéet daf leen xamal rek parce que xam nga tey euh, boo waxee nit dara tontuwu la tontuwu la fi ngeen jëm a ñi koy waxal nii tey Sonko amul ba moo ko ñaanal jabar koo bañ walla koy wax lu bon doo ko ñaanal jabar. waaw mais est-ce que boo bokk naag loolu li mbirum réew mi la. mbirum réew moo tax doo wax nit lu bon parce que moom kilifaam la. jàng ko wax lu bon. ah waaw parce que boo ne ko kii sàcc la wala kii nangam yaa ngi wax lu bon te ngeen seq teraanga moom du wax lu mu defal Sonko du ko wax nit boo demee ba ne ko kaay kaay ñaanal ma jabar mooy respecté nga ko fonk nga ko. ñaati sénégalais ñoo nekk ci dëkk bi ñaata sénégalais ñoo nekk ci dëkk bi nga ni nit yow laa bëgg nga ñaanal ma jabar amul ba dégg na lu nekk ci sunk ba ñuy formé Pastef kii mooy jox Sonko xaalis moo koy jàppale lu Sonko wax ñu ne Amadou Ba ko wax këyit bu Sonko jénnee ñu ne Amadou Ba moo ko jox Amadou Ba xeex na ba sonn pour ñu bañ dàq Sonko euh, impôt domaine mënu si dara parce que dañu naan ko sa booy la lu nekk def na ko pour sonk ba ñu jógee imp lu nekk def na ko loolu man xam naa si dara ak sama koor gi waaw bu doon sagoom kenn du dàqu Sonko mais euh, d'accord naa loolu nga wax noonu mais actuellement adversité moo am nag parce que xëccoo ci dañuy xëccoo Amadou candidat la bëgg a jiite Sonko yore candidat muy Bassirou Diomaye Faye ñu ku nekk di laaj ah yaa ngi dégg ñoom Khalifa Sall Idrissa Seck bëri nañu macha allah bu ma leen limee du ma fi jóge bëri nañu euh, xëccoo boobu ñu xëccoo fi mu nekk nii yéen est-ce que amu ngeen ak jaaxle ci Sonko ak candidat bii di Bassirou Diomaye fay est-ce que di ngeen leen mën a teel a 24 au soir. xam nga candidat yomb na. candidat am 30 millions août parrain yomb na ñaata candidat am 19 candidats. ñi candidat yëpp am na ñoo xam ne sax bu ñu taxawee bi ñetti nit sax ko gis. am na wala amul waxal. ah, ah voilà donc candidat waaw dafa nag candidat dafa yomb mais qualité laa wax ku am xam-xam mën a jiite réew mi. yow da fi nekk candidat Amadou mu Amadou Ba qualité wala xam-xam. mu ne ëpp xam-xam. Hmm. gis nii. Hmm. am na si ay am na si Boubacar Camara ñëpp xam nañ ne macha allah. Amadou Ba ñëpp xam nañu macha allah homme d'état la Amadou Ba mun na yor réew mi parce que nekk na ministre de finance liggéey na réew mi programme yu bëri si réew mi si développement dëkk bi kon Amadou Ba c'est le meilleur candidat boo xam ne tey c'est lui le président mun na nekk président de la république jiite ñu am na charisme bi am na personnalité bi bu waxee ñu déglu ko ça c'est important affaire lu fii de xam nga fan la kuy dem Nations Unies jël discours kuy dem comité européen jël discours kuy dem seeti ay chef d'état jël discours des fois nga gis benn président bu dem euh, Nations Unies ñëpp ñëpp xeeb seen bopp dëkk ba sax dañuy dañuy rus affaire nawlante la xam-xam la xam-xam la de xam nga tey des fois nga dégg benn benn nit na la diw bokkuñu classe récréation la ñuy dese ba def na ay cours impôt Euh, fële enam di jàngal ñoom seen Sonko impôt jàngal na leen. mais mën nga koo jàngal moral de précis wala. man fu mu lay rawee xam kii am xam di la ko di ko jox yow foo ko mën a rawee xam nga li ngay wax foo mën a yow nag Babacar xamantuma la de mun naa am xam-xam di la ko jox yow nga bugg ma raw. boo déggee bi man ça veut que mu gën laa euh, kii mu gën laa farlu ci liggéey gën laa. li dem mooy Ndiaye sama nijaay met dundoo yi. am na ñoo xam ne moo leen jàngal. waaye ba ñuy wax wax yoo xam ne dañoo juum xamuñ lu ñuy wax parce que Sénégal moo toll foo xam ne léegi internet beek ku nekk mooy wax ku nekk day wax te li ngay wax xamoo si dara nee naa la réew du affaire fan sa club réew du football. du làmb <laughs> réew dafa diis réew boo koy jox ni danga koy jox ki nga xam ne xam na ko mun na ko téye réew c'est important di nga euh, kii euh, candidat bi nu mu tudd Basirou Diomaye xale bu baax la fu ñu tase dina mën nuyu ku baax la wax dëgg yàlla ku respecté hmm, am na xam-xam de jàng na de. dégg naa première la daan jël classe am. déglu ma rek ku baax la man fu ñu tase daf may nuyu ku ma jox cër la ma jox ko cër. ñoom Birame Souley Birame Souley sama xam nga xale la ku baax la Birame Souley ba muy ñëw impôt 2003 Birame Souley ñëw na sama kër xam na ma ay ay samay kii rek laa fa am ma dëgg yàlla ñoom xam nañ sama diggante ak Amadou Ba Jaaw mi ngay gis. Bassirou Diop ku ñuy wax Bas moo ma ko présenté ñu xamante mu dëkk kolobaan gii. maa jël loxoom ànd ak moom biiru Amadou Ba. billaahi ne ko kii xale bu baax na dama bëgg nga jàppale ko nangam wax si moom lu rafet Amadou Ba yóbbu ko Fatick ma ko chef de bureau foofu la jógee xamante ak Macky Sall bay politique. moom Mame Boye Diao li ma lay wax kenn du ko jindi kon yow da daan dem impôt di fa fekk gaa yi ak ak Amadou Ba. waaw mooy bi ko Amadou Ba jiite. bi mu nekkee directeur fiscal laa wax ba ni mu nekkee directeur général des impôts Amadou Ba sama xarit la ku ñuy wax Abdou Lahad Ndiaye sa France moom moo booleeg moom man lu may wax day lu may wax kenn du ko jëndi Amadou Ba am na benn bés benn waaye dem si moom léeg-léeg nañu xuloo waaw léeg-léeg duñu bokk ay xalaat wala mu def ma loo xam ne neexuma ma wax ko parce man du man amul benn nit bu mu ragal a wax dëgg si àdduna bu mu la war a wax dëgg dama la koy wax bu mu la war a wax waxee dëgg fu la munti dee dama la koy wax musuma may terrain pour nit ñi xam parce que nit ñi dañuy yaakaar ne koy jàppale alal la tax musuma may terrain musuma may xaalis. yooyu benn mosu ci am dafa nànk rek musuma may terrain mayuma milliard mayuma million mayuma comme nit ñi jënd lu ma oto ma kër mayuma dara. benn bés benn waay dem na toog nañ ma ak benn waay ma ne ko sa waay dara di ko sëpp waay dem mu woo ma def ma main libre ne ma xanaa ndax da nga banque ma ko ndax mus naa la ñaan yow est-ce xam nga sama soxla mu dëgg yàlla bu ma xamee ba léegi mosuñu seq ñaan ma kon jeex na man na ma duur man mosuma seq ak yow ñaan mosuma ko ñaan mosul xam sama soxla mosuma na ko fayal ma ndox mosuma na ko fayal ma courant mosuma na ko may ma kër mosuma na ko may ma dara xawma ko ngir alalam déedéet. ci liggéeyam nga ko xamee daal. dañoo xamante. yàlla def ñu ànd ba nii yàlla tamit may na ma ba mu nekk directeur général des impôts ñi ko njëkk a wax sa laa bokk. ñi ko njëkk a wax waaw loolu la def. daf foo yëgoon information boobu. ba tamit man man si dëkk bi laa bokk ba mu nekk ministre de finance it ñi ko njëkk a wax ne ko da ngay nekk ministre de finance sa laa bokk. waaw ah, da ngaa bokk ca palais ba. bokk ma ne ba muy nekk premier ministre tamit keroog ba ma demee bureau dana ma toogal nii yaa ma waxoon damay nekk premier ministre. kon kon ànd bi yàgg na. du dëgg jig la jig jigadiw moo ko. Hmm. waaw jigadiw moo ko de. kon yaa ko waxoon yooyu yëpp kon da ngaa yaakaar ne li nga ko waxaat day nekkaat day nekk président incha allah wala. ñu ñaan yàlla rek xam nga ni yàlla mooy suñu borom. mooy dogal. est-ce que seen xel dal na. déggoo la ma wax cent pour cent man man ku may ànd sama xel day dal parce que yàlla mooy joxe waaye yàlla dafa bëgg boo ko ñaanee nga gëm ne am nga. nga gëm ne yàlla am waaw nga gëm ne am nga yow li ngay ñaan. nit day doyloo suñu borom. day doyloo te réew mi dañuy ñaan yàlla. Mhm. mu jox ko ki fi gën ki fi gën. ki gën ci ki gën fi am xol bu rafet. yéene nit ñi jàmm. te kooku man si Amadou Ba laa ko gis. am nga ci droit prési kon prési kontaan naa ci yow. maa gën a kontaan ci yow. li may ñaan réew mi nañu xam ne ku ñu gañe na nangu ne gañe nañ la sàcc élection amatu fi. président yaa ngi loolu yow it ku moom xar nga bàyyi buum gi pour pourquoi nga bëgg a jëm foofu. dama dégg ñu naan buñ leen gañee dañuy yàq dëkk bi. ñoom ñoo wax loolu. waa Pastef fi. Ah, yaa dégg ci seen làmmiñ loolu. déggul ma la wax ma ne déggul ma fii ma ne déggul ma fii nañu bàyyi bu ñu leen gañee ñu ne dañoo sàcc élection yi. élection yi sénégalais yi ñooy voté ku nekk di nga voté liste yi bu jénnee journaliste bi yow di nga am ñeneen ñëpp dañu am bu ñu compté xam ne dañ leen gagné nañ ëmb seen i bagage félicité Amadou Ba ñeneen ñi félicité Amadou Ba ñu ànd liggéey réew mi ñëpp dem si jàmm ak salaam bu ëllëgee juróomi at la bu élection jotaatee ñu uti réew mi Ablaye Wade ñaata at mu ngi ut élection ba mu ko jotee daf ba mu ko waree jot dafa yomb wala déet compétition la moo bëree yem moo football yem da ngay gañe mbaa ñu gañe la nañu xam loolu. yow it mbaa di nga fair play ni nga ko leen ni ni nga leen koy waxee mbaa di nga doxalee noonu bu ñu la gañee. bu ñu ma gañee ñëw leen ma ne ki gañee ñu ngi lay félicité di la ñaanal réew mi talal nañ la loxo jàppale la si réew mi réew mi Sénégal ak Sénégal ñun ñëpp ko moom yaa ngi léegi nañ bokk ndey bokk bàyyi xam ne réew mi ñëpp ko moom. waaye man de du ma votel ki nga xam ne day jël réew mi yóbbu ko Casamance ne euh, capital bi fa la koy yóbbu. Hmm? ah luy loolu. kooku noonu la est-ce kooku du daa jum ci erreur erreur de. non jum est du daa ma ne yow yaay wax jum jum amu fi. se waa Dakar. yéen laay waxal. xale mag ak ndaw. réew du ay du ay fan sa club. gis nga liggéey kenn mënu ko utal kenn. xale bu si nekk yaa war a ñafe sa àdduna mun a yor 6 millions naan da ngay dem France boo demee di fa taxawaalu 6 millions yi ku ko def fii jénn si fëgg jaay baa ngi nii ku jënd balu fëgg jaay am si dara tool yaa ngi fii si puut ak fépp boo demee luwe tool di bay dund bu seer bi doo ci dund bu seer defal na déglu ma fii àdduna bee cher. Ah, àdduna bi déglu ma déglu ma fii ma ne déglu ma wax la déglu ma wax ma ne déglu ma wax la loolu yëpp déglu ma wax la ah, yow xanaa yëgoo li Amadou Ba bëgg indi si dëkk bi. lu hmm. bëgg a indi. oto yoo xam ne. waaw lay doxee. oto buy dawee gaz. oto yoo xam ne. courant lay doxe nga xam ne tey oto yooyu tey dina tax réew mi dina changé parce que yow mi doon tey doon jënd essence mu cher si lool. gaz bi nga xam ne suñu borom jox nañu ko fii si dëkk bi. moom lañ siy def ngay nga jënd ko moy cher daw moins cher. gis luyaas bi. dafa amul organisation. waa déglu ma nag organisation la amul. am na waa déglu ma organisation la amul. am na mais nu muy nekkee premier premier ministre boo xam ne Thérèse Faye yow Thérèse Faye. lan la waxoon daf ñuy jox promoteur seen financement. 500 millions. contrôle Amadou Ba taxawul fii di contre Amadou Ba moo tax defu ko parce que bëggul woon dama Amadou Ba ñaata ministre nga gis fii ñuy kaas ah, ci Amadou Ba. ñoom ñëpp ñëw nañ léegi mais c'est bu ñu ñëwee amul sens yow booy booy booy jàppale nit da nga koy jàppale si programme président grade bi moo toog daal làmb ji nañ lañ jox lii nañ leen def lii nañ leen def lii Thérèse Faye def na ko. làmb kay def jox na promoteur. promoteur ba tey gisuñu 500 millions. waaw ana ana euh, Ablaye Seydou Sow. waaw Ablaye Seydou Sow ma ca fédération football. am na ñu mu waxoon nañ def léegi nañ ko. yaa ngi dégg parce que am na ministre yoo xam ne ñoon xeex Amadou Ba Thérèse Faye si jiitu wa def na déclaration di xeex Amadou Ba kooku lan la ko Amadou Ba mun a mun a kay ministre mu defal ko liggéeyam du mënul nekk nañ ñoom seen bopp lañ doon xeex gis nga politique da ngay ànd ak chef de gouvernement politique amul ay nii la wala naa la yaa ngi dégg Amadou Ba liggéeykat la nit ku baax la te xam naa ne xale yi bés bu jëlee réew mi dina xale yi dañu respecté dina jàppale xale yi. Ah, ay projet ngi fi ay financement ngi xam nga jéeg gi nag ma yëgal dama daal defoon nag ma ne waa déglu ma déglu ma fii waa déglu ma wax la waa déglu ma wax la ñi nga jéeg ji ñiy wax seen làmb ñu rëy yëpp mënuñu tere xale yi dem jéej xam xale yi lu tax ñuy dem jéej ma wax la ko léegi ah, déedéet ban ñàkk liggéey. lu tax ñuy dem. Ah, liggéey yow da ngay am métier Babacar. dafa amul métier ñaata formation lañu fi def. école formation demal région yëpp am na école formation ñu ngi former nit ñi demal lycée Delafosse bi formation yi ñu ngi fi mais munoo de yow tey da ngay jàng ñu damay tukki teg par force kenn mun si dara lu si nit mën boo demee tukki par force Babacar man lu ma si man yow loo si man man ñaata xale laa téye man ñaata xale laa téye ñu bañ a tukki te tey gis nañ seen bopp si réew mi bërgi dem am na xale yu ma indi suukaru koor bu leen bàyyi woon tey duñ ko am bërki dem ba am na xale yu may wax ñii fukki junni ñii vingt cinq mille ñi xaw ma ñaar ne ma sa suukaru koor parce que père yaa tax tey ñu am lii yaa tax ñu def lii parce que dañoo dégg mais boo déggaree sa bopp di dugg si internet bii ñu lay yàqase sa bopp bii sa yaay di la ñàkk ak sa baay nga topp ay nit ñoo xam ne amuñu kilifa doo am dara ni dëkk bi da ngay am kilifa bu ñu conseillé nga déglu ñun am nañu association bu ñuy wax euh, ànd defal Médina ay xarit lañu woon ñoo naa ànd dañuy dimbalante suñu biir tey da ngay soxla dara ñu financé la nga liggéey nga fay du Dieng mooy suñu président ñoom bu ba Diagne am na ñu nekk bitim réew ñoom Lamine Ba ñoom Bouba Diagne ñeneen ak ñeneen. am nañu ay xarit yu nekk fu ne dañ siy def def si seen alal ñoom Cheikh Amar Cheikh Aram ñëpp ñu ngi siy dimbali ay nit ñu ma am ma dañuy dimbalante te ni ñuy dimbali ñeneen ñu ngi dimbali suñu ay jigéen yu ay ñoo ñooñu tey ñu ngi dimbali seen jëkkër di dem euh, marché caaro yi jënd ay légumes di jaay seen taabal yi di am dara ku bëggul am dara yaa buggul am dara maa ngi gërëm ñëpp wasalaam jërëjëf merci macha allah mu mel ni waxtaane nañ làmb ah dégg ngeen li président wax ci làmb ji macha allah am na solo waaye tamit li mu wax ci politique bi ah lii nag mooy politique parce que politique moom ku nekk fi nga bëgg a far ngay far ki nga am ci moom yaakaar ngay àndal waaye ñun nag li ñuy wax daal mooy euh, ki gën ci réew mi yal nañ ko yàlla jox dimanche incha allahu rabbi xaw ma kan lay doon nag waaye yal na yàlla da def daal mu nekk ki nga xam ne bu ñëwee. soxla yi Sénégal yi nekk njàqare yi xiif bi yi wala boog du mën du mën a sax xiif waaye dundu gu seer gi boog location bi transport bi ah ak yeneen ak yeneen ak yeneen li nga xam ne réew mi daal ak ñàkk liggéey yi seen yi nekkee jàng ba yor say diplôme doo say diplôme génn université doo doo liggéey yàlla na yàlla def kii falu dimanche Cheikh Omar ah yàlla na mën a saafara soxla yooyu parce que nag loolu mooy besoin sénégalais yi Sénégal nag benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk gaay su politique jeexee campagne jeex on est ensemble dañuy ànd rek liggéey pour que Sénégal jëm ci kanam